Thieb Joal Assipa Odiane l'entrée de Thieb Joal Thieb Joal Assipa Odiane meke kam ngel ne Djilor Djidiack Thieb Joal ndeysaan cey làmb làmb la mu làmb boo ko làmbee xam mu nga yëngal mu nga yëngal Thieb a nga yëngal waay laal dëkk bi la laal couleuru Djilor la laal rouge